الحمد لله الذي أغناني وأعزني بتلاوة القرآن ثم الصلاة على النبي المصطفى خير البرايا من بني عدنان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 dañuy faral di saytu suñu bërëbu liggéeyukaay ci lépp lu war a mën a indi lakk ngir artu bépp jeya waaye suñuy mbëbët yamul foofu lobbu maam jaara yamul ci gaz ngir am wàll wu rëy ci pétrole bi feeñ suñu réew ci atum 2016 lañu taxawal lii di lobbu oyo ngir indi xarala yu yees ci wàllum hydrocarbure ni ñu koy defee si butaan bi xarala yu bees xarañte jëfin bu bees tey dañuy taxaw ngir féete fépp sénégalais yi ci li ñu soxla suñu xarañte nag waral entreprise yu bari wóoluñu ba ci dëkk yu ñu wër tax na lobu maam jaara Bousso kenn mënatu ko wute ëllëg si biir dina bokk ci suñuy mbëbët ñu wër jaabe yi ci Afrique yépp ngir mën leen a gunge fépp te it ngeen yelloo li gën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 ñu ngi sant buur yàlla subhaanahu wa di julli ci ngën gi mbindeef di ñaan borom bi subhaanahu wa mu defar ñu jàmm di nuy kenn ku ne fi nga nekk ak fu mu mën a doon yal na la suñuy nuyoo ak suñuy ziyaara ak suñu ñaan fekk la ci jàmm bu la fekkul ci jàmm tamit yàlla na la yàlla soppil ci li nga nekk mu nekk jafe-jafe mu nekk xéewal ak jàmm ak sutura ndax jàmmi ñaar yooyu ñooy dundam yenn saay mu nekk ci xéewal yenn saay mu nekk ci naqar mënta ñàkk ci dund bi waaye népp lu ñu dal rekk yàlla nañu yàlla may imaan bi ñu ko mën a supporter imaan boo xam ne day mujjee soppiliku soppeeku nekk xéewal nekk bànneex di nuyu képp koo xam ne yaa ngi topp ci Ali Imran TV di jàpp ci liggéey bi moo xam ci partage vidéo yi moo xam ci abone moo xam tamit jël sa alal def si moo xam commentaire nag lu mu mën a doon moo xam tamit da nga toog sa ruq di ñu yónnee ñaan moo xam effort ak énergie boo mën a dépenser rek ci mbir mi rek ñu ngi lay bàyyeek borom bi te dañ ne buñ ne nit ki bàyyi nañ nag yàlla mu naqari la rek li nga leb leble wala nga defoo baaxut baaxut kon yéen nag defu leen lu bon lu baax ngeen def moo tax bàyyi nañ leen nag borom bi subhanahu wa taala ndax moom rek mooy ki mën a fay waaw moom rek mooy ki mën a fay di dellu ak yéen ci suñu émission bi ñu tuddee falsafatu du'a philosophie de l'invocation tey nag li ñu leen indil mooy muhimmatu du'a ba tey mooy importance su ñaan dafa bokk ci njëriñ yi nga xam ne dafa nekk ci ñaan mooy ñaan min asbaabi nuzuli rahmatillahi fil ard ñaan dafa bokk cause yi tax sabab yi tax yërmande yàlla wàcce ci suuf ci kaw suuf mbokk yi ni ñu gënee yokk di ñaan rekk suñu borom subhanahu di gën a wàcce yërmande parce que yàlla li mu gën a bëgg si ñu defal ko ko ci suñu dund si suuf si kaw suuf mooy ñu wéetal ko mooy ñu fas ne wane ne manifeste ne keneen newu fi leneen newu fi lu dul moom subhanahu wa kese wa kullu ma siwa allahu leneen lu dul yàlla rekk neen la du dara caaxaan la te ñaan day symboliser tawxid ku la ëpp lu muy ñaan daanaka moo la ëpp tawxid moo la gën a am imaan parce que ñaan dafa am solo kon bokk na ci lii tax yërmande borom subhaanahu wa taala di gën a wàcc ci kaw suuf yokku dolleeku saawan baawan mooy ñuy tàllal suñuy loxo borom asamaan di ko ñaan saa su suñu dund booy bu fekkee ci loolu rek la yam mu neex ndax yërmande yàlla fu mu wàccee rek mooy que ne lépp a ngi fa waaw raxma moom fu mu wàccee rek jeex lépp mat na surtout nag raxmatul rabb samawati wal ard nga xam ne moom moo bind ar rahma muy yàlla subhanahu wa mu bokk ci ay turam ar rahman ar rahim allahu akbar mbokk nañu ñaan boroom subhanahu wa taala nañu dolli suñuy ñaan bokk na tamit ci importance yi nga xam ne ak njëriñ yi nga xam ne dañ koy jëlee ci ñaan ñaan da koy sabab waaw ñaan day tax nga am ko walla ñu am ko ci kaw suuf mooy def ñuy fànkal ay musiba dafay changer destin waaw destin ñaan rek moom moo ko mën a changer dogal nit ki lu métti wala lu compliqué walla lu jafe situation boo xam ne kenn mënu koo xam moom moom sax su suñ ko ko waxoon ne mën na koo dal sax mën mën naa waat ne lii yaakaar moom mu dal ma sama àddina fekk mi ngi bokk ci ndogal yi nga xam ne yàlla dogal na ko ci moom waaye ñaan yi ngay ñaan di ekkiti loxoom borom asamaan ak suuf di ko ñaan ñaan ñooñu tax ba destin boobu ndogal boobu bu ko dal mu mucc si loolu ñaan rek moo ko mën ñaan rekk a ko mën lii cest à euh, ñun xam ñun stadir dañuy dund ci lëndëm lëndëm bu kurus lëndëm boo xam c'est-à-dire man ak yow mii may topp ci émission bi xamuñu segond biy ñëw ci boppam lan mooy xew ci suñu dund xamuñu ko bu fekkente ni kon yow lii ñëw xamoo ko maîtriser woo ko te lu ne mi ngi ci biir suñu borom subhanahu wa taala may la occasion ne la ñaan ma dee ñaan te ñaan yooyu mën naa tax loolu war laa dal yow jullit ki mu changé ko mu def mu nekk lu positif mu nekk loo xam ne neema lay doon neema xéewal kon xanaa kon dinañ góorgóorlu ci ñaan nit ñi góorgóorlu ci ñaan kenn rekk mooy kii bëgg a ñaan te ku ko deful mu mere la mooy yàlla waaye keneen ku dul moom rek ñaan da koy soof waaw ku mun a doon nag nga dëkk di ko ñaan mu jéppi la waaw moo tax du ku nekk nga mën a ñaan li may wax yaakaar naa ñun ñun képp ku ma déglu na xam li ma bëgg a wax lan la waaw wallaahi du ku ne nga mën a ñaan waaw bari na ñoo xam ñoo xam ne dinga am soxla bu ne soxla bu ne nga xam ne leer leneen ni seen seen argent de poosu benn ngoon rek faj na sa junni soxla te nga xam leen mais ñeme woo leen wax problème mu ñemewoo leen ñaan. parce que xamoo ni ñi ni ñu koy interpréter ni ñu koy gisee xamoo boira ban ban ban xiima ban ban daraja lañ lay jox après c'est-à-dire da ngay tuuti après seen kanam nga yëg ko nga ñàkk ko yëg parce que ay mbindeef lañu amuñu munuñu ay fuqara lañu sont des pauvres kenn rek mooy ki am wallahu huwa al ghaniyu يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد yéen nit ñi yéen yéenay pauvres yi ci kanam borom bi suñu diggante am na pauvre am na euh, richard am na riche xaw ma nuñ koy waxatee euh, nit nit ku omle wala am wala nit ku boroom alal yooyu yëpp suñu diggante ñu ne kii daa ndóol kii daa ñàkk kii moo tax mu ne ilallah ci yàlla moom pauvre ñu ñëpp ay pauvre lañ moom rek mooy alxani moo om lañ suñu diggante nag ñii mun nañoo am ñi ñàkk minkum waaw agniya minkum fuqara nga kon yàlla kot dong rek ngay ñàkk ñaan mu mere la waaye keneen ku dul moom boo ko ñaanee benn yoon ñaari yoon ñetti yoon mu jéppi la kon ñaan dafa am njëriñ dafa am importance ñaan dafa di loo xamante ne bi waruñu ko sàggane suñu dund saa su ne ñu rappelé ko mbokk yi mooy yeneen bi léppam ñaan la woon dundam yëpp ñaan la woon te moo ñu ëpp ci li nga xam ne moom la taxawal ci ay asbaab nekkul woon jaamu yàlla jaamu yàlla boo xamante ni bi dafay ñaan yàlla ba pare yàccaa toog du def dara du jéem waaye moom dafay ne ca la mu ne di ñaan ñaan rekk bàyyiwul benn yoon kon ñaara ngi ni jàpp ko tey ay impo doona importance wu ñaan la ñaan yi ñaar yi bu si njëkk mooy ñaan dafay tax yërmande yàlla wàcc ko su mën a wàcc ci yow fii yaa ngi ñaan borom yàlla daf lay yërëm day dolli yërmandeem ci yow yërmandeem mooy ay xéewalam waaye tam fii yaa ngi dëkk ci ñaan ñaan daf lay pankal ay musiba day changer destin dafay soppi li nga xam ne moom mooy ndogal yi nga xam ne waroon na laa dal te mu nekk ay ndogal yu doy waar ci dund yu metti kon mbokk yi moo tax philosophie bi ñu war a am si ñaan dégg-dégg bu ñu war a am si ñaan dafa war a soppeeku ak taxawaay bi ndax change ta pensée ta ta ta vie change waaw change your mind your life change allahuma in yaaxoon ala bismillah allahuma non déedéet il faut que dégg-dégg bi ma lan ngay ñaan lu tax may ñaan kan lay ñaan loolu day tax xalaat boobu day war day waral lu bari day tax nga jéem a teewal jëmm ki ngay ñaan donte ko yàlla jëmmam kenn mënu ko teewal fenn waxin la loolu day tax nag ni ngay ñaanee dafay changer yéeg tamit importance su la ngay def ak dayoom day tax nga jox ko importance day tax nga gën koo jox yitte kon moo tax suñu dégg-dégg ak suñu taxawaay si si ñaan dafa war a soppeeku dafa war kon mbokk yi loolu mooy li nga xam ne tey moom lañ leen indiloon ci falsafatu du'a la philosophie wala philosophie de l'invocation ñaan bii nga xam ne tey moom la ñuy tëjee tey ñaan la boo xam ne yàlla moo ko joxe moo ñu ko joxal boppam mu ne ci suratul baqara rabbana atina fid dunya xasanatan wa fil axirati xasanatan wa qina adaban yàlla rabbana yow suñu boroom atina may ñu jox ñu fi dunia ci àddina bii nii xasanatan yiw lu baax cest à baaxalal ñu suñu àddina lépp dañ ne ñaan la boo xam lépp ci dugg boo nee fi dunia xasanatan wér dugg na ci wér gu yaram wërsëg dugg na ci gudd fan dugg na ci réussite dugg na ci xam-xam dugg na ci njaboot dugg na ci soxna su boroom kër bu baax jàmm sécurité kaaraange lépp xas fi dunia xasana dugg na ci wa fil xasanatan lépp dugg na ci mooy dugg aljana te boo duggee aljana lépp am dox waqinaa adaaban naar ci mbugalum safara am na ci àddina te am naa laaxira ñaar yëpp nañ ñu si musal kon ñaana ñi ñi kenn du ko jàngal kenn ndax ñëpp mën nañ ko dañ koo dégg dégg dégg dégg ba kenn du ko jàng parce que da ngay dudd rek mën ko ndax bari li nga koy dégg waaye bu ko bu ko sàggane maa ngi lay ñaan foo mën a nekk heure boo sëlmalee ba pare boole ko say ñaan boole ko say ñaan waaye nga teewlu ko teewlu ko sa dund àddina bii dina changer balaa quelque temps waaw loolu képp ku jot jot cay ci vidéo bii nii nga topp ko ci Ali Imran TV nga tàmbali saa yoo sëlmalee farata ñaan yi ngay ñaan nga boole ci ñaan bii nga xool ko weer rek xoolal ci kàttanu yàlla sa say mbir dina changer waaye nag na nga ko doxalee ni ma la ko waxee mooy tawxiid gëm ne yàlla rek rek rek a fi moom dong nga am ci moom confiance ne dalay nangul sa ñaan ba pare nga tàllal sa loxo nga nga nga présent nga nga nekk fi waaw mun doon absent présent jëmm ji nekk fi waaye xel ma ak esprit beeg yooyu mu ngi feneen niñ ci leneen déedéet pratiquer loolu nga entraîner ko nga jéem ko pendant un mois nga xool. vingt 21 jours sax 21 jours nga 3 fois 3 3 fois 7 bi defal boobu rek 21 jours nga xool parce que secret day jàpp fatiha nga vingt 21 xuruf ñu ko composé fa yéeme nga xool dina changer incha allah kon loolu lañ leen indiloon tey ñu tëjee ko suñu émission ñun ñëpp ñu ne amin rabbana atina fi dunya xasana wa fil axirati xasana wa qina adaba annar wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh amin alhamdulillahi alladi agnaani wa a'azzani bitilawati alqur'ani thumma alsalatu ala annabiyi almustafa khayri albaraya min bani adnaani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 dañuy faral di saytu suñu bërëbu liggéeyukaay ci lépp lu war a mën a indi làkk ngir artu bépp jeya waaye suñuy mbëbët yamul foofu lobbu Maam Jaara yamul ci gaz ngir am wàll wu rëy ci pétrole bi feeñ suñu réew ci atum 2016 lañu taxawal lii di lobbu oyo ngir indi xarala yu yees ci wàllum hydrocarbure ni ñu koy defee si butaan bi xarala yu bees xarañte jëfin bu bees tey dañuy taxaw ngir féete fépp sénégalais yi ci li ñu soxla suñu xarañte nag waral entreprise yu bari wóoluñu ba ci dëkk yu ñu wër tax na loobu maam bu soo kenn mënatu ko wute ëllëg si biir dina bokk ci suñuy mbëbët ñu wër jaabe yi ci Afrique yépp ngir mën leen gunge fépp te it ngeen yelloo li gën loobu maam jaara ju jóg si di indi lu bees di xool it fu gën a sori